àdduna te ñetteelu ko parce que il faut tamit témoignage yi di kase yenn yenn yenn yenn préjugé wallaay dëgg la sénégalais moom bu xasee non moom dee la gën a ragaloon moom ndaw si bu ñu ne am na jëkkër ba jëkkër ja faatu na moom pour nga dugg ci problème na xanaa ngay gëm yàlla lool lool lool lool kon yooyu yëpp wax dëgg yàlla ay caaxaan lu war a am kenn mënu ci dara li war am mm-hmm. yàlla programme na lépp mm-hmm. parents yi dañuy jege doom yi di waxtaan a ñoom parent yi yoo war a nekk ay professeur ci doom yi mm. ay jàngalekat ci doom yi toujours di waxtaan ak ñoom ndax boo waxee sa doom li nga bëgg ak li xew ci sa sa ku nekk famille bu nekk dafa am li mu bëgg maanaam mm, cos mbaaxam ko ma mbaaxam maanaam li mooy suñu aada. Mm. lii suñu culture ñun lii lañ bëgg. bu papa doom ji xamee papa ji ak yaay ji famille bi lii ci am xanaa bu amee jom nag lu dem ci dugg loo xam ne ba ëllëg di sànq mbëggeel wala coow di am ñun kër suñu famille kenn du fi takk famille nangam. kenn ba ci dañuy dem kenn du takk xeet sàngam ñuy làkk nangam. Ah, ah. waaw ñun ay nangam lañu. kenn du takk nangam kenn du takk ku mës am doom ba pare. kenn du takk kuñ mës a kuñ am na xam ne sax dañ naan sax ndaw ba tey na bu ngeen am boo demee ci ma a ko takkati moom nga xam nga bu ngeen mën dem na bu ngeen am juróomi doom duñ ko takkal kon nga xam loolu kon parents nañu toog ak doom yi di wax ne lii moo am suñu cosaan lii am suñu aada ba ëllëg ñu bañ kaa def maam Ousmane Gueye moom mooy papa imam Moussa Gueye bu RTS da dajale woon jabar gi bañ toog ndeysaan mu indi peel peel xam nga dafa rëy te diis mhm. indi bigg mhm. daal di jël big bi jox leen ñu téye mu ne gis nga ni mu oyofee daal di teg jël peel bi jox leen ne leen ku ci lajj ci bigg bi ci peel bi nga jëm waaw ku lajj ci big bi ci peel bi nga jëm peel bi gën a diis kon jàpp leen ci bigg bu baax a baax ba am xam-xam parents yi dañuy waxtaan ak xale yi lii laa bëgg lii laa bëgg lii laa bëgg waaye coow lépp nag nekkul ki ma sa am doom kii ma sa sëy màgget mi ki la mag problème mooy soxla su baax. Mhm. soxna su ak mbëggeel. dëgg la ak mbëggeel. dëgg la paa bi mënut a dem bëgg ku nga neex takk ko ñëw naa la bul def nangam. paa bi mënut a dem ci lonage yi di pee mi ñëw na bu kenn pee piil ci kër gi. bu kenn piil ci kër gi mënta nekk dem nopp ka la neex takk ko te fii lu fi bëri teg bu boo bëggee takk ñu bañ tante ji moo lay woo wax la saw sa papa mhm. wala yaay ne ah xanaa tey nangam ak nangam kon toujours buñ leen di njëkk a wax li fi xew te nga def fi nga bëgg xale yi jaar nga jaar fa tegle bu jubee ndab lu njëkk laa jub nii laa mel nii laa mel jarul di wax dangay def ni nga bëgg xale yu mel ñu roy ñu roy la ci ëllëg ngay waxtaan ak ñoom bu baax a baax baax waaye tamit ba waaye waaye ba ba tamit na ndeysaan <laughs> euh, toujours tamit nañuy nañuy nañuy nañuy na nañuy nañuy na nañuy sóoraale maanaam boo bëggee boo bëggee xale bi boo bëggee xale bi jaar fi nga bëgg bëgg a jaar yow xaw yaa ngi koy xaw ma xaw ma mandu tey yow dem takk yow dem takk sa ñaareel ko xam mës naa am doom wala ñett ñett doom sa doom bëgg a ñëw takk ko aawa nga bëgg a bañ tamit du du du mën a nekk du mën a nekk toujours da ngay jaar fi nga xam ne macha allah ëllëg euh, li nga bëgg daal dee ko def pour xale itam ëllëg macha la ñu jaar ci waaye yow mi sëy si ci kër gi Ndiaga Fall hmm. xale ku ko jigéen ku sëy si ci kër gi bu bëggee di fàttaliku sëyam bu njëkk ba sëy bi ci biir kër gi mën na di am problème sama jëkkër ju njëkk sama nangam bu njëkk ba sama nangam bu njëkk ba danga indi sa album sax wala indi sa photo ancien jëkkër ci kër gi boobaa fiir dafay am nañ koy bàyyi ku baax loolu dafay am waaye tamit doom bi indi ci kër gi buñ ko jàppewul doom bu juddoo ci biir kër gi rek coow mën na ci am bu xët jotee ñu xët ko di ko xool benn benn bët ni ngay tibbee teel la jug bu ko ci ba njogaral loolu lañ koy bàyyi doomu jiir la du doom rafetul doomu ji la du doon te heure doon jotagul te balaa doon nga jox ko cëram ndax wax dëgg yàlla mën naa def teraanga ko ci kër gi ko xam ne ne ku judd ci buum gi sax ku judd ci kër gi euh, defu ko hmm. kon buñ boo takkee nit ak i doomam war ngaa mën a takkaale doom doomee ndax sey doom lañ ëllëg bul xam ku la ci defal teraanga kon nañuy yamale bu baax a baax nañuy mandu ci xale yi waaye baña faale xale bi te bëgg ndayam tegoo ko fenn kon nañuy rafetal <laughs> looloo waral sëy yu bëri di am problème bis bu ko yaay ji xamee rek tàmbali na xol ba di bon waaye bis bu ko tamit macha allah ki sëy si xamee rek wala ay waajoon xam ne ko xam ne wax dëgg yàlla na ko mais bëggul ay doom mantu nañuy rafetal ki indi ci kër gi waaye tamit nañuy sóoraale sëy bu njëkk ba comme que xas naa ba jeex bu ko fàttali ko ci kanamu sa jëkkër ju bees ji ndax day indaale fiiraange te lépp lu lu fi indi ci ay coow fiiraange moo ko fi indi macha allah taalibe Serigne Touba Mbacke yow yaay sama coup de cœur du moment de ah, ci commentaire yi euh, à chaque fois def commentaire yu baax yu neex doo xaste doo saaga doo wax lu ñaaw waaye nee na ngir njar ko moom <laughs> lu mu bëggul ñu wax ko sax dafa am nu mu koy waxee nee na Ndiaga ak Ousmane leen wax ji daal xam naa moom dafa bëggante ak koo xam ne peut-être dafa divorcé yàlla na yàlla mottali lépp incha allah ci kàttanu borom bi moom mi nga xam ne mooy yombal mu yombalal la ko te bu ci ay am incha allah yàlla na ko yàlla def euh, euh, Pa Ousmane dafa wax lu am solo faal euh, regard suñu société rek moo andi loolu société bi bari na ci loo xam ne mooy bañ mooy bañ day bañ sax ba taxaw ci kaw diine day bañ ba taxaw ci kaw diine te pourtant ñun lépp loo xam ne dañ cey dañ koy def ci diine gi ñu tënku fa lañ woo war nekk suñu seetu ñu xool te diine bu ne lii baax na lii baax na léeg-léeg nag diine ne yow de daganal naa la lii mais da ngay xool ci sa xel nga ni dëgg dëgg diine daganal na ma mais dafa am loo xam ne peut-être moral moo ko nanguwul mais bu la diine dagalee rek defal dëgg la du moment où nee na la mën nga def rek defal na ñoo xam ni seen ya aada ya mhm. aada mhm. dëgg la dëgg la. am góor gu baax Alaaji Ngañ Fall daan wax naan nit mere ma. Mm. moo ma gënal yàlla mere ma. allahu akbar. Mm-hmm. réew mi parfois dañuy bëgg nit kontaan yàlla mer. mantu réew mi xam nga seen problème mooy lan gàcce la ñu gën a ragal ka bàkkaar. Mm-hmm, mm-hmm. gàcce la gën a ragal ka bàkkaar. mooy li ngay wax ni maanaam am na loo xam ne ci diine dala koy may ñoom ñu lànk ni ala ñu mayu ko doo ko jël ci dëgg la te pourtant diine may na la ko dëgg la diine taxaw boo layoo war a diine diine yey la dëgg la mais dañ naan ci aaday euh, euh, famille bi mm-hmm. kenn mosu ko fay def te pourtant diine may na la ko dëgg la moo tax la dëgg la ñu gën a ragal que bàkkaar te passement gis nga jamono ji ji ji dañ daan takkal diw mu takk diw. dëgg la xam nga tax. Mm-hmm. tool yi benn la woon. Mm-hmm. sàq bi benn la woon. dëgg la. Mm-hmm. yi benn la woon. gi benn la woon. ku ay da ngay dem ci sàq ba. kër gi kenn yilif ko. kër gi kenn ko yilifoon. mais jamono jii kuy takk takkal koo bëgg. dëgg la dëgg la. surtout dafa metti surtout. kuy takk takkal ku la seytaane bari doole. ku lay takk takkal ku la ki la bëgg. parce que jamono metti na ku la bëggul mënatu laa muñal. déedéet déedéet. jamono gis nga ki la bëgg. moo la mën a muñal lu baree baree bari jafe-jafe jafe jamono bi. allo ndeysaan. allo. allo oui. allo salaamaaleykum salaamaaleykum. si maaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu di la ziar. delloo nuyoo bi maa ngi di nuyu bu baax. mbaa a ngi am jàmm. may am jàmm damay seetaanuma sax dama doon dem. Mhm. dama romb léegi dégg ngeen di wax ci waxu jiitle. waaw doomu jiitle wala. man sama yaay dafa sëy ba tas am ñaari doom yu góor ñaari doom yu jigéen. Mhm. ñaari doom yu góor yi nekk ci sama papa. man ak sama mag mu yóbbaale ñu sëyi feneen. Mhm. Euh, bi may nekk xale bu may nekk xale la loolu li wax nii. dama joteeg sama benn doomu ndey ça veut dire fi ñu fi ñu dem nii sama yaay fi ñu sëyi doomam. waaw xam nga li ma la wax. Mm-hmm. waaw doomu jëkkër ji sama doomu ndey daal. waaw mm-hmm. sama papa jibli ku mu jur ak sama yaay. Mm-hmm. ma joteeg moom mais saa su ma jotee woon moom sama su fa fekkee sama yaay dañuy régler ndax ay